laa yafqahuun tey ñuy jàngale maa hiyal bidaa lan mooy bidaa balaa loolu moom darsu bi ñu yeesu jàngoon na ziwaaju misma misiyaar mais daf ko niruleeg nikaaxul mutaa ci ñoom ñaar bokkuñ ziwaaju misiyaar soxna ci dafay teggil jëkkër ji dund ak dëkkuwaay loolu moom wax na dëgg ñoom ñoo ko sos su fekkee siwaaju misiyaar boobu la namm loolu ñoom ñoo ko sos parce que ci mazhab bi warugar yi nga xam ne dafa war boroom kër euh, soo xasee takk soxna si daf lay war mënoo takk soxna ne ko du mën a dundal parce que dund bi kooku sharia moo ko waral yéen mënu leen koo teggi loolu wax na dëgg ci biddaa yi ñu sos la amaa bu dee ni kawoon mu taa nag eh, dégg ngeen la ma ci waxoon mooy ko tumuranke ci ngir mi mën naa takk nit ma takk soxna yéene ci waxtu sàngam bu jotee mu fase ko su ko defee bidaa nag dafa am ñaari façon déggin boo jàppee ne bidaa mooy loo xam ne amut sukkandikuwaay ci alquran amut sukkandikuwaay ci hadiis yonent bi su boobaa bidaa ay xaaju bidaa amut bidaa yëpp bon bi lu amut sukkandikuwaay ci alquran amut sukkandikuwaay ci sunna loolu lu bon la moo tax dafa am ñoo xam ni sax yi nga xam ne nii lu baax la duñ ko tuddee bidaa man léegi-léegi noonu laay def lu ëpp yu baax yi du ko tuddee bidaa man mais teewut am na ay borom xam-xam yu ko tuddee bidaa bal sax xalifa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam def na lu baax tuddee ko bidaa muy Omar Omar ibnul Xataab moo tax borom xam-xam yi maandu ñaar dañoo seetlu ko ñaari xaaj ñeen ñi ne bidaa amut bu baax bidaa yëpp a bon ñooñu nag dañoo jàpp ne bidaa mooy loo xam ne amut cosaan ci alquran amut cosaan ci sunna loolu lépp bon. اما سو فكي دا ني بدا موي لوني سوس غناو يونتي بي كوكو بدا لغوي لا لغوي بات بي رك موتاخ ني نكو بدا باسكو سوس نكو غناو يونتي بودي لول لا موي بدا سو با بدا فو موي خاج فو مو برافت اك بو نياو دا ني نيك صاح با لو وار بدا دا ني ما دا فاي وار سو دا فاي بروم كوم خميت خاج نانكو نون لنكو خاجي اما لو بيس لي خيو mooy liñ sos gannaaw yonentu rek baaxut bidaa bu bon la loolu moom ñoo ko sos teguñ ko ci lislaam te war nañ ne dégguñ diine yow teguñ ko ci lislaam <coughs> su ko defee bidaa ñaari façon yooyu la am boo jàppee ne bidaa mooy luñ sos gannaaw yonent bi rek su boobaa dafa am bidaa yu baax ak yu bon boo jàppee ne bidaa mooy lu amul sukkandikuwaay ci alquran ak sunna su boobaa biddaa yëpp yu bon lañ pourtant yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii yonent yonent yi moom waxul ne luñ sos gannaawam biddaa bu biddaa la ko tuddee moom sunna la ko tuddee parce que dafa ne islaam sanna fil islaami sunnatan xasanatan ku sos ci lislaam sunna bu rafet sunna mooy yoon danga am tiyaaba ba ak tiyaaba ka ci topp loolu xadis boobu danañ ko jàng ci darsu bi su ko defee kon li nit ki sos te yonantu daaw ko def waaye nag am na cosaan maanaam lislaam santaane na ko loolu kay sunna bu rafet lañ ko tudd maanaam sunnaam moom waa ji maanaam yoonam comme ni ñuy tuddee tariqa ñu askane ko Cheikh Tidiane ne tariqa Tidiane <coughs> comme ni ñuy tuddee mazhab ñu askane ko Malik ne mazhabu Malik parce que mazhab boobu yonantu bi sosu ko at yi nii mu ko tabaxee yonantu tabaxul ko noonu bu fekkoon ne yonantu bi noonu la ko tabaxee kenn du wuteeg moom mais masaay li nga xam ne nii kay lépp leer na alxuraan yax na ci yaxal na ko loolu kenn du ko dee mazhab parce que lii alxuraan a ko santaane wala sunna yonent bi mais dégg-dégg Malik moom la tuddee mazhabu Malik dégg-dégg Shafi ñu tuddee ko mazhabu Shafi dégg-dégg boobu Shafi Malik moo ko balalu ci diine attee ko nii mu ko attee tëralee ko nii mu ko tëralee su ko defee loolu kenn du ko tuddee bidaatu malikiya <laughs> bidaatul malikiya xam nga kenn tuddeewu ko te pourtant gannaaw yonent bi lañ ko sos moo tax man pour man sax yooyu tamit moo nañ ko tuddee tariqa rek yoonu waa ji wala sunna waa ji sunnatu fulaan mais doo wax ne nag sunnatu rasul parce que yonentu defu ko defu ko mazhab malik kenn du ko askane yonent bi parce que yonent bi samput ko xalaat yooyu génnewut ko mais nag ki ko génne daf ko ballaloo ci alquran ak sunna istinbaat it alquran saxal na ko ndax wax na ne wala rudduhu ila rasul bu fekkee buñ amee dara dañ koy delloo ci yonent bi wa ila ulil amri minhum ak ci borom xam-xam yi la alimahu alladina yastanbitunahu minhum ñi mën a ballalu ay masala danañ xam nan la ñuy ballaloo ay atte ci wax ji dégg nga tey loolu la ñuy jàng pour wane ne bidaa dafa am ay façon bu rafet ak bu ñaaw su fekkee biddaa mooy loo xam ne dañ ko sos gannaaw yonent bi laal laal la maanal kalima al bidaatu bidaa maa hiya mooy lan mu ne laal la maanal kalima amaana maanaa baat bi luxa wiyen ci luxa laa yu mun naa dañuy yitteel yow ma tey bidaa mooy lan ci langu arab amul lu ñu solo wa fi istilaahi ulamaa yi bu dee si jëfandikoo borom xam-xam yi toujours danañ fekk taarifa ay xamle mu taadidatun yu liimu naftaaru dañ tànn minaa ci moom min kitaabil bidaatil xasana ci téere bi wax ne al bidaatul xasana bidaa bu rafet aslun cosaan la min usuli tashri ci cosaanu yoonal yu ñuy sukkandiku ba tabax sharia ba tabax atte bidaa bu rafet ci la bokk téere bi noonu la tudd li mu allifi ñeen ku ko taalif Isa bun Abdullahi alximyari moo ko taalif boo demee si page safa 27 ba ci quarante deux <coughs> dégg fekk maa ngi lii lii mais nga mooy lii boo xoolee passe yooyu da fekk muy wax loolu ñaar bidaatu bidaa bidaataane ñaari bidaa la wax ji imam Shafi moo ko wax imam Shafi la ko askane imam nga xam ne ñëpp moo moo la la daa jëmee na ulama borom xam nañ ko mën ngaa wax ne ci am ci xel yi ndax amul kenn kuy sikk sàkk imam Shafi borom xam-xam la wala du borom xam-xam moom lu mu wax daf ne al bidaatu bidaa bidaataani ñaari bidaa la bidaatun mahmuda bidaa buñ sant bu baax wa bidaatun mazmuma ak bidaa buñ ŋàññi mooy bu bon lii la imam Shaafi wax mu ne fa maa waafaqa la dëppoog sun ak sunnata sunna maanaam luñ sos gannaaw yonent bi waaye boo ko xoolee gis ko ci sunna mu am delluwaay foofu loolu mahmudu luñ sant la ci misaal tudd leen yàlla alquran da koo santaane sunna yonent bi santaane ko mais wutalut ko waxtu wutalut ko barab wutalut ko kayfiya naka lañ koy defee yow nga tànn yow saa yow jullee gaye ba pare da nga toog tudd yàlla ba min wi nga door a tëdd ndax yonentu daf koo def ndax benn saxaaba daf koo def mais yaa ko sos ci diine loo sos kayfiya bi ni nga koy defee mais loolu ngay def moom sosuwut te amu ci sunna luy dàq kéefee bi bal sax lu koy saxal la ñuy gis parce que yàlla def na tudd leen yàlla rek ci waxtu yépp ci façon bu ngeen ko mën a defee soo waa loolu bidaa lañ koy tuddee parce que nii nga koy defee yaa ko defee noonu waaye bidaa la buñ sant parce que am na ci sant sunna mboolem turuq yi nga xam ne nii dañuy tudd yàlla foofu foofu lay aju waaye lu wuteeg sunna wa maa xaalafa sunna lu wuteeg sunna foofu moom mazmuum lu ñàññ la bépp bidaa bu wuteeg sunna kooku moom dañ ko dañ ko ŋañ mooy lan mooy saa yu jullee gee après da ngeen tëgg tam ak fecc ba mu neex ba seen yaram tàng ngeen dem tëddi loolu bi loolu baax na loolu bokkul ci lislaam de wala booy tudd yàlla foog nga indi ay ndënd dajale ko ba mu baax ngay tëgg di fecc loolu baax na bidaa wala ngay tudd yàlla di si tugal tu ci dugal turu diw Hmm? <coughs> tudd yàlla di tuddaale turu diw hmm, mais loolu loolu bu bon yooyu bidaa hmm? yoo xam ne ni baaxut parce que yonent bi daaw ko defee nii te lii ngay def nii lislaam def ko xaramal muy fecc yeeg tama yeeg lëkkale turu yàlla ak turu koo xam ne nii yàlla mosul lëkkale turam ak moom laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah jeex na keneen keneen dugg ci moo tax sëriñ su baax yëpp daan nañu wax ne bu leen kenn tudd di tudd tur yàlla ku ko defee yaa leen tooñ waaye ñoom loolu du seen tur fama fii zikru cheikhi aw zikru xeyrihi wérde tijaan amul turu cheikh tijaani amul turu keneen ku du cheikh tijaani tudd yàlla rek la hmm? loolu bidaa la waaye bidaa buñ ngànj la lii al imam Shaafi moo ko wax ne bidaa ñaari bidaa la lu dëppoog sunna bidaa buñ sant la lu wuteeg sunna bidaa buñ ngànj la kooku imam Shaafi moo ko wax انا لي نان لا ديفك واخي نيغي ني ديغ غود ديغ بيتك ني تيو باغي نياكان خام كوم فوف رك لا فاري ووتيرن تروك واخ تجلينا امام شافعي بقول عمر بن الخطاب تي واخو عمر بن الخطاب في قيام رمضان سي نافل ويركور نافل ويركور يونتي موسكو سخال جيرن جيتي ويركور مبولو ما سي جمعه موسكو سخال موسكو سخال كون gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko Omar defee saxal ko jël camp bu mu leen jiite def ko muy imaam di leen jiite naafila ci jumaa ja comme nii ñu koy defee léegi nii loolu sunna Omar la wala nga ne tariqa Omar la yoonam la ci lislaam wala nga ne sax bidaa la boo xam ni Omar ibnu Xataab moo ko sos ci diine mais bidaa bu rafet la moo tax ba ko Omar defee ba pare def ne niamatil bidaatu hadihi bidaa bi day baax kenn gënu dégg arab omar ibnul xataab kenn gënul xam lislaam saxaaba yi su fekkoon ne omar loolu mu def tudd bidaa saxaaba yi dañ koy ŋàññi ne ko lii du bidaa mais ñoom ñëpp dañ ci d'accord mais omar tamit bidaa la ko tuddee mais bidaa bu rafet la ko tuddee kon bidaa bu rafet foo mu am foo mu am ci sunna lu tax mu tuddee ko bidaa bu rafet ndax julli mais julli xaraamut تنافل بير بودل لو سي سنة دا يجيس ني يرن تبي صلى الله عليه وسلم دفن كو تيمبولو مي داف كو ساخالوت كوم ني بوغا ساخالون بو ياغي من نكو فراتال يرن تبي جوغي في كون عمر ام دورا موم ساخال كو ديري يونتي تبي ساخالوت كون دا جامونو يونتي تبي اك لي تاخون ساخالوت كو اك جامونو من خطا بوكوت جامونو بري بوغا ساخالون من نكو فراتال لغي نا امنا لوي فراتال غناو في يرن تبي جوغي ديدت كون عمر من نكو ساخالوت dañ ci déggee ne jamono yi ñu wutee ba tax léegi-léegi ñu changé atte atte bi nag boo ko changé defee comme yonent defee wutoon mën nañ ko tuddee bidan waaye bidan bu rafet uma <coughs> dafa neemat baax na al bidaatu bidaatu haadi bi deuxième bi al bidaatu bidan fi diini ci diine loolu ku ko wax alxaafis ibnu xasm rahimahullah mu ne bidan ci diine kullu maalam yaati man lii rek laa doon wax man mooy lépp loo xam ne dikkut fi alquran ci alquran ولا عن رسول الله ديكوت سي يونس صلى الله عليه وسلم مورا نياري داو ما خاج بي دامل بو مان لين دا لو ديكوت سي سنن ديكوت سي القران باخ بور مان بي دا لو وون لا مي ييب سنن لا سي سما ديغ ديغ دا سنن دا نيو واخني موي لو خامل ني دافنا يونس دافنا كو ولا مو جيف كو ولا مو نانغ كو مو اقرار كو يونس بي دا نياك اقرار لو خامل ني دلنا سي القران اك سنن te res yonent bi si boppam moo doon nangu saxaaba yi di def ci kanamam lu wuuteeg loo xam ni moom jàngalul leen ko sax ah, ñoom ñoo ko déggee noonu rek defee ko noonu muy jaamu yàlla mu baleen ci ñaar rakk yooyu bilaal doon def saa yu jullee saa yu jàppee julli ko <laughs> loolu bi daa la maanaam yonent jàngalewut ko te daf koo nangu ko yonent bi moo nangoon ñuy balalu ay atte di góorgóorlu di jaamu yàlla comme ni nga xam ne noonu lañu déggee diine ci jamonoom te waxuñu dara kon loolu sunna la gannaaw buñ ko defee comme que daan nañ ko def ci kanamam di balalu ay di ko jëfee di wuutee ne ñun nii lañ déggee nii la defee mu di ko nangu su ko defee gannaaw buñ ko defee nan la nekkee bida bu fekkee sunna mooy lu yonent bi iqraar nangu yonent bi nangu nañuy baralu ay si jamono lu mooy ñu bëgg wax ne sunna mooy loo xam ne def nañ ko ci yonent bi ci kanamam ba pare mu nangu ko ni waa nii la waaw su boobaa rek gannaaw boo baralu ay àtte mën nañ ko bañ a tuddee sunna dégg waaye tamit bu dee dëppoo naag alxuraan sunna bidaa lay doon bu rafet loolu <coughs> Ibnu Hazm nee na bidaa ñaari bidaa la lépp daf ne lépp lu dikkul ci alxuraan ak sunna kooku mooy biddaa illaa anna minha lu muy am na ci biddaa maa la nga xam ne yu ujëru danañ yool danañ yool maam danañ fay ale ci moom saaxibu boromam wa yonzaru ñu nangul ko ngant bi ma xasada ci sabab su lam jublu ilay jëm suma min xëyrin ci yiw am na biddaa boo xam ne nit ki bu ko defee dana ci am tiyaaba ndax jubluwaayam bu baax moo tax dañ koy nangul ngant Hmm? ñu ngi tabax école di jàngal li ñu xam-xam ci école bi yonent bi amoon na amoon na moyen pour mën a tabax école ndax tabax nañ juma daan nañ maye téeméeri gërëm mais mosuñoo tabax benn école nag rawatina def ko classe par classe <coughs> mais loolu bi daan la mais jamono yi bokkut boo ko ñu fay la ci wa mi ne am na si maa la nga xam ne yu jëru danañ ko fay ali ci moom wa yakunu mu nekk xasanan di lu rafet wa am na ci bidaa maa la nga xam ne yëkkun dana nekk mazmuman di lu ñuy ŋàññi wala yonzaru te duñ ngàntaal na bidaa yoo xam ne luñ ŋàññi lay doon te borom du am benn ngànt mooy mboolem yu bon yi nga xam ni gis ngeen ñu sos ko gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te tegul fenn kooku moom borom amul benn benn lay hmm. te nag bul jàpp ne nag saa yu nit sosee biddaa muy muy lu rafet rek nit am na droit comme neex sos si déedéet affaire bi li nga li nga li nga woote ak li ngay wax dañ koy natt ci alquraanu sunna su fekkee am na wajhu anam guñ ko mën a layee ci alquraanu sunna mais loolu bu dee biddaa nga ko tuddee laa wax biddaa bu rafet la bu la neexee nga tuddee ko sunna waa jooju wala yoonu waa jooju mais su fekkee lim def. boo ko nattee ci alquran ak sunna amul benn lay mais kooku bidaa bu bon la hmm? bidaa bu bon la xam nga léegi-léegi nit dana am tariqa gannaaw yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam di tudd yàlla hmm? keneen samp fële ab tariqa wala boog sax mu askanoo ci tariqa boobu ne moom mooy yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam yonent ci yàlla yàllaa ko yónni gannaaw yonent bi moom yonantu la gannaaw yonantu yàlla Muhammad sala xasa kufrun ba wax loolu weddi yàlla la ay <laughs> gannaaw yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonantu mënatul am loolu boo jëlee wax jooju ak ku ko mën a wax boo ko layee ci alxuraan sunna du dem loolu bidaa bu bon la bu xaraam du lu nit wax rek dëgg la du lu nit wax rek dëgg la nit mën naa tollu ci yàlla fu sori wax loo déggut yow nga wax ko wedd yàlla parce que ñaar bokk leen li ngeen jublu sax li mu wax mënoo fexe fexe ba dégg ko sa xel mi parce que daf laa sut xam-xam yow nga woote ko wedd yàlla léegi si changé pourtant man ngeen a bokk même li ngeen wax mais bokku leen jubluwaay su ko defee yow nga wedd yàlla moom mu kii <coughs> loolu day am sax si fiq ngeen bokk même li ngeen def te bokk leen jubluwaay jubluwaay dañ ko ciy xool soo jëlee benn waay ne ko gasal ma teen bële eh, li nga ci jublu mooy ijaaratu yooloo danga koy liggéeyloo lam liggéey nga fay ko nga jublu ci loolu moom mu gas ba sonn teen bi bëndut danga koy fay lu mu jot a gas soo ko fay du da am bàkkaar keneen na ko gasal ma teen boobu mais li mu ci jublu mooy <coughs> hmm? nu mu tuddati aljonlu maanaam danga may liggéeyal ba mu teen bi bënd bu bëndee ma fay la bu bënn du ma la fay waaye su gasee bu bëgg a dee teen bi bëndu tamit doo ko fay dara pourtant yow ñàkk nga koo fay amoo ci benn bàkkaar mais kee ba mu ko ñàkkee fay def ci am bàkkaar parce que ñaar li ngeen jublu du benn moo tax ñaari at yi du mën a nekk benn benn mbir mën naa niroo ñu bokk même lu ñu wax ñu fay kii mbugal kële parce que bokkuñ fu ñu teg seen wax yooyu ak seen jubluwaay <clears throat> moo taxit yooyu di xàmme jubluwaay pour mën a atte lii bidaa ak dul bidaa am na solo woo moom bidaa bu yàqu ما مولا خمنا قامت تخونا الهجة اللي على فسادي تياقم فتما دا ممكنتني القائل أجي واحد بيك مو لو خمنا ورنا ندق أن لنا لا يلير ناني ندق نقول كنت نقول ما يبدا بون ها طريقه بن دي يرفت مي دا نغيس كي اسكنو تي بي طريقه لام بدا لي بدا لا مي بدا بون لا waaw da gis kuy askanoo ci biir tarixa ne sëriñam moo raw yàlla wax na dëgg waxu dëgg wala mu ne sëriñam moo yonent bi ñoo sëriñam moo moo yàlla sax mu far hmm? loolu benn wël yàlla mosu koo wax ku wax yaa lañ ko waxal waaye ñoom mosuñ koo wax mosuñ koo wax waaw su ko defee yooyu bul xool ne kii ci kër diw la nekk ne lii bidaa la bidaa bu bon la jeex na amaa loo xam ni nag man nga xool lay ci alxuraan ak sunna mais loolu kenn du ko tuddee bidaa hmm? su ko defee suñ defoon nii rek ñun ñëpp danañ danañ xam fan lañu teg suñ tànk <coughs> ñetteel ba euh, ki ko wax mooy al imam al izz bun abdusalaam rahimahullah <coughs> mu ne al bidaatu bidaa فعل ما لم يعط ما يدف لو خمني مينين كو دف في عصر رسول الله سي جمعنا ينتبه صلى الله عليه وسلم دف لن, مص... لن مينتون دون دف سي جمعنا ينتبه لن بدا ويما منقسمة دف سيد لكو إلى بدعة واجبة سي بدعة بوار وبدعة محرمة أك بدعة بحرام وبدعة مندوبة أك بدعة بنصب وبدعة مكروهة أك بدعة بنصب وبدعة مباحة أك بدعة بدغن لأن بدعة أمن الوار moy lo xamne ni boko baye rek bayilu war te pourtant defuñ koon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fay war comme loo ma dem na Abdul wax de len génnee ay atte yu bees comme nuy nit ñi génnee ay katchor yu bees pourtant atte bi atte l'islam la ndax wama lam yahkum bima ma anzala fa ulaayika humul kaafiruuna ku wut ci lu yàlla wàccee koo kéeféer la Omar ibn Abdul moy mooy xaamisu xulafaay rasidiin la koy gaa wax ndax mando ndax mando di nit ku baax nga xam ne si jamonoom dafa yar ba yar till yi dafa am benn sàmm bu nekk ci àll ba di sàmm ba si kanam rek gis benn till di dàq benn gàtt mu ne Omar dee na ba mu si dëkk bi gis ñu tàggee Omar ibn Abdul Aziz ndax moom maadu teem demoon na ba yàlla yaral ko rab yi ci àll bi kooku bu demee ba ne dee leen sos at yu bees da ci dégg ne nekkul lu ñu def gannaaw yonent bi lu bon la mais bu nit ñi génnee ay kàccoor yu bees yoo xam ni boo attee boo ne leen gëñ leen ñu gëñ léegi dem doxi seen soxla yi mais yaa ngi sànq àq nit ñi dafay war nga génnewaat benn atte boo xam ne doo ko teg ci gëñal rek te bu mu wuteeg sharia rek nii nga koy attee bokkute na doon yonent bi di attee waaye nag jamono yonent bi nit ñi ragaloon nañ yàlla ragal yàlla goo xam ne ñi mu ñoo gën ci kàccoor mais tey nit ñi mën naa jël xaalis jàmbur nga wax ko mu gëñ ne billaay loo loo ko gëñ loo mu gëñ daal di set dafa yomb soo waa doo ko àtte noonu boo ko àtte noonu yaa ngi tooñ da nga sànq lu ñëpp nit ñi bokkuñ kon Omar ibn Abd ibn Aziz loolu mu wax boo xoolee bu boo sosee àtte bu bees parce que kàccoor gu bees génn na bidaa la mais bidaatun xasana bokk na ci bidaa xasana xam-xamu mustala xadis mais luñ sos la. gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xamu ko woon mais nii ñu ko sosee ne lii mooy xadis bu wér moo loo xam ne maa rawaahu daabitun adlun dégg nga an mislihi duni shuzuzin wala illatin ba mu jeex yooyu ñu wax noonu ci lii mooy xadis saxi lii mooy xadis xasan lii mooy xadis daif munkar ba xeeti xadis yi jeex mustal xadis jeex yooyu ñu wax bidaa la dañ ko sos gannaaw yonent bi mazaahib yi bidaa la dañ ko sos gannaaw yonent bi mais bidaa yooyu yëpp lu war la ndax wëttu chériatu lu war la te nii taxawaay bii ñu taxaw bu ñu ko defutoon pour wëttu chéria chéria jógee fi léegi tey kenn du xamati dara am na masala yoo xam ne nii sax man ngaa wax ne dundoo koon si jamono yonent bi gannaaw gi ñoom ñoo ko balondu ba indi indil ñu ko téere yi léeg-léeg dañ ci jàng masala yoo xam ne pour nga dem bu fekk benn xadis bu si wax dafay doy waar doo ko ñoom jàngal nañ ko balaloo ko ci alquran ak sunna seen xam-xam loolu ñu def biddaa la ci diine mais biddaa bu war la tasawuf biddaa la mais biddaa bu war la ndax boo ko defutoon sànq jikko yu bëri jikko yu bëri lu bëri si njàngale mi yonent bi raw na raw nañu bëri ndax yonent bi daf doon yar cër yi di yar xol yi di yar ruux yi shariatu bi nga jëfee ndigal yi bàyyi tere yi moom mooy yar sa cër ba sax yàgg sa borom ngeen mane mais tasawuf moo yar sa xol yar sa jikko yar sa ruuxu ba doo bokkaale yàlla kooku bidaa la nii ñu ko tëralee maanaam wut tariqa hmm, ba ñag jikko yi ñu bañ a sànku ba boole nit ñi ak seen borom ñu bañ a yàqu yonent bi defewut ko nii ci jamonoom mais buñ ko defut nii ci jamono ji ñu toll nii ak nit ñi ni ñu mel nii dafa yàqu hmm? Hmm? xam-xamu naxu <coughs> ñu di ko balalu ba di ci attee di ko maasee alxuraan ak tomb gi ñu tomb alxuraan maas ko loolu moo amutoon sa jamono saxaaba yi bidaa la mais bidaa la bu war parce que ñu ko defutoon affaire yi du baax kat hmm? ku doon xale yi ñun man mii du mën a jàng alxuraan wala bala maa jàng alxuraan ba mokkal danaa sonn li ma doon dimbale mooy maas gi. moo tax ma mën a xàmmee baa ak yaa surtout loolu su ma fàttee benn laaya sax su ma ubbee alxuraan ji ah comme que fàtte naa ko moo ko duma ko duma xam lii baa laa koy jàngee wala yaa laa koy jàngee mais tomb yooyu ñu tomb alxuraan bi daa la bi daa boo xam ne waajib la dafa war ilaa ma laa ne xayaloo école yi ci la bokk débat yi ñuy def nii yéen saxaaba ngeen ngeen doon ñeneen invité ci débat xam-xam ñuy def débat nit di leen seetaan kii naan lii la kii naan du nii ñu def débat noonu di ko def géew jàpp bis fa ban saxaaba nga nga si mos a gis ñaari saxaaba ñoo doon def débat débat xam-xam yi ñuy def nii hmm? conférence yi ñuy organiser at ak at wala weer ak weer yooyu yëpp ay bidaa la yi nag du mu wax ne bidaa bu <coughs> bu war la dégg nga hmm. xëy dañ koy sopp rek. ndax dana leeral dara ci diine dégg taalif téere yi tamit bidaa la mais bidaa bu ñu sopp rek lay doon parce que boo taalif doon téere tamit ba léegi sharia mu ngi fi taalif téere dana gën a yombal jàng bidaa la waaye bidaa bu ñu sopp la taalif ci fiq ci nangam ci nangam yooyu gannaaw yonent bi lañ ko commencé maanaam li téye lislaam lépp bidaa la léegi bis boo fi naroon génnee lépp bidaa da ngay gas lislaam suul waaw parce que nit ki bañ bidaa rek boo demee ci néegam bu fekkee jàngkat la la nga fa fekk yëpp ci li muy jëlee xam-xam bidaa la ay téere la te benn saxaaba taaliful ko téere yooyu benn saxaaba am benn waxuma sax saxaaba sax moom du mooy indi sharia waaye waaye loo xam ne saxaaba taaliful ko yonentu taaliful ko jël ko def ko sa téere si nga jëlee xam-xam bi ngay wax nit ñi te naa leen lu xew gannaaw yonent bi bidaa la yow xam nga dof sa xam-xam bi sax bidaa Hmm? téere bii may liir ni di ko jàngale ni dañ koo taalif yonent dafa mos a taalif téere tuddee ko laa yafqahuuna ban saxaaba ko taalif dañoo mos a taalif ci fànn bi ñoom kenn ci ñoom mais lii bidaa la mais bidaa bu rafet la kon il faut ñu xam ne bidaa dafa am bu rafet ak bu ñaaw bu defee ñu bañ a kiiwee diina nu mu demut neena na am na bu war ak bida mu xarama bu haram, <coughs> dégg mm-hmm. bida bo boo dafa haram mm, comme jël mm, niw def ko euh, ci barab di julli di fa jublu wala di ko Juli ci mm, julli julli yalla lañ ko wara defal dem ci di ko jaamoog yoyu yonent defu ko saxaaba yi defuñ ko loolu bidaa la dafa xaram su fekkee da ngay jaamu bàmmeel yi su fekkee ne da ngay ñaan yàlla rek barke moom nekk na fu ne yàlla naa joxe barke nu ne maanaam sax dafa am benn masala yi boo xam ne ñu bëri waxuma la sax bi bidaa mais dañ naan shirku la bokkaale yàlla la mooy dimbandikoo sa jaam si jaam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wax na ci hadis boo xam ne Buxaari andi na ko xam nga Buxaari lan la ko tarjuma xadis bi baabul istianati bi duafaay wa saalihina wala yu mel noonu bunt bi jàngalee dimbandikoo ñu lott ñi ak ñu baax ñi ñu ñu mel ni liiruñ lii dimbandikoo ñu lott ñi ak ñu baax ñi mun ci kitaabul jihaad euh, ci la nekk ci ba bunt boobu yonent nee na إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم si si ñu lott ñii la leen yàlla di leen wërsëgalee ci ñoom la leen yàlla dimbale yàlla di leen dimbale nit ci nit bu ko defee ibnu xajar ba mu koy sharxa def na bi barakatihim wa bi duwaayihim si barkeem ñu lott ñooñu ak ci seeni ñaan ci la yàlla dimbale nit ñi yàlla dana defal nit dara ci barke nit loolu nag moo xam muy dund wala muy dee mën nga koo ñaan waaye dem ci bàmmeel di jaamu bàmmeel ba Hmm? wala boog lii ñenn ñi def fonk ak sëriñ nit doon tabarruk ci sëriñam hmm? yow nga dem yee commencé sirku ci sëriñ bi yow mooy lan mooy léegi sama sëriñ bi mooy yàlla hmm? léeg-léeg nit wax ko de buy ñaan au mu ñaan yàlla sëriñ bi lay ñaan te xamul ni nit yàlla yi daawu ñaan ci kenn ba ci yonent bi dañuy tawasul ci moom tawasul ci yonentu waaye xam nañ ne yàllaay joxe yow nag boo jàppee ne sëriñ bi mooy joxe bokkaale nga loolu nga def bidaa la waaye bu xaraam la am na bidaa buñ sopp comme taarif téere wa bidaatun makruha ak bidaa buñ sib bokk na si defar si jàkk ji ay image maanaam def ci ay télé yoo xam ni booy julli da ngay gis tele yi mu di la jax-jaxal lépp lu lay jax-jaxal su julli gi dañ dañ ko sib kon loolu comme que attem si l'islam mooy dalay jax-jaxal te lu lay jaxjaxal dañ koy sib nga def ko ci jumaa yi def dañ dañ koy sib waaye xaramu na <coughs> ak bidaa bu dagan am na dégg nga mboolem lekk yeeg naan yi nga xam ne ni génne nañ ko ci aada ni hmm? lekk moom lislaam santaan na ko kulu washrabu mais façon solin yi ngay soloo te bokkut ak noonu yonent bi di solo wala naan yi ngeen naan ci yonentu daaw daaw ko naan comme zi ñu fi gis yu bees ah yooyu bidaa la de hmm. waaye bidaa guñ bu dagan la wala boo ngeen julli ba pare joxante loxo salaamaaleykum joxante loxo xam nga julli joxante loxo saa fante gannaaw julli suba wala yooyu bidaa la waaye bidaa buñ bu dagan rek la parce que joxante loxo dagan na sans julli nga def ko gannaaw julli dara nekkul ci su ko defee yow mi nga xam ne ah xel nga boroom xel nga pour nga mucc tuuti del nattee nii borom xam-xam yi nattee mais bul bëgg noonu aw nit rek tax nga ne lépp luñ def bi la ndax gannaaw yonentu lañ ko def soo waa gasal lislaam sànni yaa ngi dégg bul mel ni mbokk suñ mbokk yi waxaabe yi ñoom benn mutasawif bu defee lu bon dañ naan lii mooy tasawuf waa tasawuf xam nga loolu mooy mooy wane seen ñàkk mandu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak mën a mën a mën a mën a sos wax dëgg yàlla ndax benn nit def na lu bon nga ne waa tasawuf est que te wër nañ la moom kenn moo ko def xam nga ko bu la waxee ne lislaam lay xeexal jikko yonent bi la yore waxu dëgg parce que bu waxoon dëgg du fekk benn nit buy askanoo ci tasawuf ak ku mën a doon def dara mu ne waa tasawuf na jàng si sunna dana fekk saxaaba yonantu buñ tuumaal njaalo dana fekk saxaaba yonontu sax buñ jàm bam dee ci njaalo ndax day wax ne waa lislaam lislaam a ngi nii nii la mel ba tey dana fekk jullit buy naan sàngara dana fekk jullit bu rey nit ndax dafay wax ne lii mooy lislaam su fekkee ku maandu la du wax ne lii mooy lislaam day wax ne kii moo génn ci santaane bi lislaam ak kum mën a doon maanaam li nit ñi war a def mooy xam dëgg ku ci nekk ñu xam ne nekk na ci mais xam neen ak caaxaan ku ci nekk ñu xam ne nekk na ci mais dëgg duñ ko àttee ci nit ñi diw def na lii rek lii mooy yoon wi suñ maandoon duñ def loolu moo tax man <clears throat> loolu yoon yi ma leen dégg ñuy wax waa tasawuf waa nàngam si jël benn image rek ne lii mooy tasawuf loolu niru na ne ñii dafa am lu leen di defloo te loolu sax mooy dëgg benn seytaane moo leen defloo boo xam ne ni jinde la dugg seen pas-pas yi gëm loo leen ne leen noonoo leen ñii rek luñ mën a lu ñaaw lu xii rek askan na leen ko ñoom ñëpp ñoom ñëpp noonu lañ mel noonoo leen rek wala boog seytaane nit bu leen financé xaalis ñu bëgg a yàq waaye loolu moom du maanu du lislaam ku jàngul sax xam ne loolu du lislaam ko defee maandu daal baax na te xam ne jullit jullit mooy mbokkam su ngeen wutee ci loo xam ne nii kenn ku nekk am na delluwaay na ku nekk nangul moromam yomal xiyaamati yàlla dana àttee wute gi ci diggante xam kan moo nekk ci njub ak kan moo nekk ci caaxaan <clears throat> wa tariqu yoon fi maarifati zalika ci xam loolu yoon wi ngay jaar nag ba xam bidaa bi lu war la wala lu xaraam la wala lu ñu sopp la wala lu ñu sib la wala lu ñu dagan la an tuurada mooy ñu gaaral maanaam ñu teg al bidaatu bidaa ala qawaidi sharia ci ponk sharia da ngay teg bidaa ci lislaam da nga koy natt daal ci attey sharia feeñ daxala nim dugg na fii qawaidi ijaabi ci ponk yi nga xam ne dafay waral fa hiya bidaa boobu waajibatun lu war la comme li ma la wax léegi wax naa la léegi ne la fànn tajwid ak mbolem fànn yi nga xamni ni nahwu naxwu bu amutoon xay xam sharia jógee fi yoy dañ ko sos gannaaw yonent bi fànn bi ci boom tour wi yuñ sos la règlement yi ci teural yuñ sos la mais nak lépp ci alquran sunna lañ ko jëre kon lool dafa war parce que buñ ko defutoon rek shariha jugge fi wayen daqala nem dugg na fi qawaidi tahrim yi ci ponki xaraamal fa yi moom xaramatul lu xaraam la bidaa bi bu dee da nga gis ne lii dafa xaraam lii nii ñu sos ni gannaaw yonent bi boo ko xoolee ci alxuraan dafa xaraam ci sunna dafa xaraam loolu biddaa bu xaraam la ni ki yëngu-yëngu yu bari yuñ fii def teguñ ko fenn hmm? wayn daxale nam dugg na fii man mandub ci ponk luñ sopp fa yi moom mandubatun luñ sopp la biddaa soo ko xoolee gis ne lii luñ sopp la comme taarif téere dañ koy sopp wayn daxale xam nga jàngale hmm, taarif téere bu amutoon sharia du kii loolu luñ sopp la بوين دخل نم دوغنا في قواعد المباح تي بونك لو دغان فهي مباح فنو دغان لا كوم نين داف كوم لي ني داف ني رك كوريتي ولا تفسكي بو جوتي ني دي كين كو نيك ديم سي موروم عيد المبارك خمغا يونتي بي موني غنون خم الاسلام داو داف لول ها بالم اقبال ني يالا يالا بول بال اك سار يوي ولا ني داجالو تي كير ني نيب تاج فا سي نيام ليك دغان نا بدعه لا بدعه بو دغان نا Hm? su ko defee noonu nga koy xoolee rek soo ko xoolee ni yow da mucc te it bul noonoo benn jullit tax nga bëgg koo yàq ba lu mu defati rek loola boog lu nit def sax nga askanee ko moom wala askanee ko kuréel ga mu bokk pourtant moom wallaahi yoonam nekku ci ngeen bokk ndey ak baay taxul ngeen bokk jikko ngeen bokk benn diine taxul ngeen bokk jëfin <coughs> kooku imaam al izz bun abdusalaam moo wax loolu wax jooju ñu la wax léegi ñetteel bi ñu ngi ko jëlee ci ibnu asir rahimahullah mu ne al bidaatu bidaa bidaataani ñaari bidaa la bidaatu hudan bidaa boo xam ne njub la wa bidaatu dalaala ak bidaa boo xam ne réer la ñii ñëpp ay borom xam-xam ne xataa la ko leerlee ci saxiixul muslim hmm, borom xam-xam yu bëri bidaa boo xam ne njub ak bidaa boo xam ne réer la فما كان لنك في خلاف ما أمر الله دي هو تيك ليالا ديك لنبي تموم ورسول وقنونتهم صلى الله عليه وسلم فهم في حيث زمي منشي والك لنجني والإنكار أقلن ورويت لو خمدني بدا على تمو تيك ليالا ديك لي أقلن تبي صلى الله عليه وسلم لولين كوم نجني وين كويت وما كان لنك واقعا دي تابي تحت عموم ما نزب الله تيران رن مثلا لنا خمدني صبرون الله عليه ليجي مسي موم وحد منيا عليه سموم أو رسول وقنونتهم فهو من في حيز المدح منشي لاقا تاغ بو ري يالله فا سنتان لو خامني عام لا كور يالله سنتان لك يو غا تان بيسو ثلاثة بو جوت غا وور دا يونس داف لان وور بيسو mais bidaa buñ tagg la ndax yàlla xaraamul xoot salaatu benn yoon tey ki la fekk tey nga nga tee <clears throat> sa kurus di wér de mu ne ci boppam boo mu nekk ci bidaa te moom moo la gën a jege bidaa ndax laa gi ngay wax gannaaw jullit tàkkusaan gu nekk ci misaal jëmmi astafurlaa gi yéen ñaa ñëpp da ngeen bokk na yàlla santaane na ko astafurlaa googu wax ko heure bu ne da ngeen jàpp ne dagan na yéen ñaa ñëpp ci bokk amul heure bu mu xaraam moom mooy la xaraam na nga def ko gannaaw tàkkusaan gi léegi nu mu xaraamee xaraamal astafurlaa gannaaw tàkkusaan du ci am benn teg taxi te loo xam ne ni gannaaw yonent bi nga ko def bidaa la kon moom bu dee loolu la moom bidaa la parce que moom gannaaw yonent yonent bi mosu fekk gars yi wér de gannaaw taksaan mu aay leen <laughs> loolu mosu koo def yow def nga ko kon loolu bidaa la li nga def bidaa la su fekkee lu amut sukkandiku waaye ci alxuraan sunna mooy bidaa yow muy fekk ku wér de gannaaw taksaan gu jot nga ne ko bàyyi ko yow li bàyyi ko boobu nga wax amul su amul sukkandiku waaye ci alxuraan sunna doo dem ci alxuraan ba mu digle ne wér de gannaaw taksaan dafa xaraam doo ko fekk ci sunna te da nga dem ci alxuraan ba muy war na ne wér da tudd yàlla waxtu wu ne dagan <coughs> ndaa yàlla mënul ko waxtu moo tax dëgg-dëgg bëri na ku lay wax ci biddaa nga nekk moom moo nekk ci biddaa moom moo nekk ci biddaa su ko defee lépp loo xam ne daal gis na lii ah, yàlla santaane na ko santaane ba am muy lu baax loolu kenn mënu koo tuddee biddaa bu ñaaw boo ko tuddee biddaa it biddaa bu rafet lay doon فانت يا اخي يا سون بوك عزيز بو تيد بي ترى دا نغا غيس ان هؤلاء ني غاني استاد ييغا خا مني سانغ لاني الكرام يو تيد علماء بروم خم خم المنصفون يو ماندو المحققون يو دغال سين خم خم غا خا مني ليو خام نانتي لاي با سي امام نووي اندينا لي ولنا بي دان دو ليب مو بون اتاو ديك ديكي ناني اندي ناني بي تعريفه تي اي خملي jaamiatin yu aji dajale maanaa yi nga xam ne nii yëpp war na cee dugg maaniatin yu aji tere maanaam yuy génne lu ci bokkut ñoom bi daa firi nañ ko firi moo xam ne lu ci bokk lépp dugg na lu ci bokkut génn nañ ko ci te ni mu dana màgg xan faxmin ci dégg saaqibin bu leer nañ seen wax ji mu ngi jógee ci am dégg-dégg bu leer wa taba wa ak ci géeju muxiitin bi aji peeg bi sunnati sunna lii ñu wax boo ko xoolee da xam ne ñii ñu géeju leen ci sunna ومقاصد الشرع أجبل واي شرع يوم خمنا لن لا شرع أجبل تنبري وغير هذا التقسيم دور سدر بينك لا يقبل دكان ولا عقل دير قل ولا دين رشاعن دينه برم خم خم يلين نور يدك دور نور دين قل نعو كدين نعو خم ما نم الإسلام دال لبلين سوسر جنا يلين تبي سدا الإسلام loolu si xel si boobu moo ko nangu te ki koy wax mënu cee mucc moom mënu koo dund loolu mënu koo dund moom mënu koo dund ndax léegi bu ko waxee ba pare bu dee yàlla dimbal na ko tuuti rek da ngay gis mu dem ci école am toog bureau ana bureau Aboubacar ak Omar ak Ousmane Gaali ci ci xam-xam saay saay bu bëgg dee dem sa bureau léegi raay koll ga weer dee mën a andi leen seen fay gi ku yow fa yow dàq nañ la subhanallah koosu dafa mel ni sa dafay accroche bi diin loolu lay tabax école boo xam ne dañ la ko financé yow am na si ñoo xam ne dañuy financé école bi sax fayoo dara ngay fayee ko nit ñi su ko defee nag def ko classe par classe ibtidaay indaari sanawi ku kii euh, imtihaan ñu ngi compo examen am nga diplôme sàngam yow racim nga da ngay dellu gannaaw point nangam nga mais yooyu nii ñuy jàngalee nii. فنلقوا الإسلام قمي لا يعرفه النبي ولا أحد من أصحابه ينم تخم كو كن تصحابه يخم كو تخم كم مول أب صورة تدينه جان خم كم دو جانغر دو ميتشي مي جام يا الله كون نيكو دو ينم تبي جانغر يكين نون ينكو رجف مين عسانس كوبا باري تنا لب لو عسانس كنا ينم تبي بدالا يوسا خم كم بيجي بو مي بدالا من لون لا ينو نين موم واحد نلي بدالا ويفك موم فم خم خم دي سنة mais yow sa xam-xam bi sa bidaa la parce que li nga ko jëlee yëpp bidaa la téere yi bidaa la kayit yi kañ ya nga doon jàngee ak big bi bidaa la notes yi ñu la doon may bidaa la classe nga doon dugg ak classe par classe bidaa la diplôme bi nga am bidaa la conférence yi nga doon def bu école tëjee bidaa la mais mais yow yow sa xam-xam bi lépp bidaa la supprimé ko. nga dem wuti xam-xam ci sunna door a wax ni ñuy jàpp leen si sunna hmm, yaa ngi ma dégg su ko defee <coughs> ñii li ñu wax loolu moo di dëgg leneen ku ko wax mënu koo dund man loolu yaakaar naa ko ne waxaa bi diine mënu koo dund mënu koo dund daal yaakaar naa affaire leneen a ngi ci daal leneen a ngi ci daal mais lii du bëgg lislaam rek surtout boo toppee seen site yi lu bon xew rek ñu jël ku gaaw ne waa tasawuf ak ñoo mën a nar wa saaxibu boromam dégg nga sa yëlifu dana tàppe waye duuru muy wëndeelul yu bari la pour mu lay maa la nga xam ne laa yumkin jàpp nduur lay ko min tanaqudaatin ci wuutee wa tadaafuaatin ak jeñante xaribatun yu tumaranke te taraadu yoo xam taraadu yoo xam dañuy contre dañuy contre dañuy contrante maanaam dañuy wuuteeg wa samaaxatal islaam ak lislaam gu jàppandi gu yombu gi <clears throat> bidaa bi ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy bëgg wax ne lépp lu ñëw gannaaw yonent bi bidaa la boo xoolee toujours dañu bëgg a lu luñ mënul lay da wax naa la ñoom lañ nekk rek bidaa la dégg gis benn waaye si ñoom bu taxaw jël téléphone am téléphone bés benn biton bidaa bidaa bidaa bidaa xaraam nangam nangam nangam bàyyi mu dem nit ñi bés déglu mais mais jàngale ci whatsapp fan la koy yonent bi def ak benn saxaaba fu ñu ko def mais whatsapp bu dee moyen kurus moyen la mais da ngay sa kurus di ci compter ñu ne la dafa xaraam bidaa la ba pare di joxe xam-xam ci whatsapp mais que demal fekk nit ki yonent bi daan jug di dem fekk nit ñi di leen jàng di leen woor ci lislaam waaye taxaw rek jël sa téléphone whatsapp rek nga bàyyi mu dem. ban lan ngeen créé ab group nag saxaaba yi fan lañ créé moom groupe whatsapp groupe ban ban tur groupe da nga may indi bu saxaaba yi am mm-hmm. musul am léeg nga sol sa yére ba mu baax dem ci télé bi toog ñu <clears throat> ñi di seetaan da nga naan yaa ngi leen jëm waar leen fàttali yàlla ah. fan ban télé la benn saxaaba mosu génn mais wootee leen ni leen ci bi doon woote te lii moo ëpp sax gis nga nu a gën a bëree tiyaaba gën a bari mm-hmm. yow mi toog sa télé sa sa sa sa barab jël sa groupe sa whatsapp wax ak ki toog ci télé wax ñu ñoo gën a néew coono demal fekk nit ñi waaw mais ne loolu yonent bi dundee ñoom sax mënuñ koo dundee mënuñ koo dundee su defee tànqal nit ñi ci bidaa gu dul jeex dëgg dëgg loolu moom lislaam wax dëgg yàlla loolu moom benn seytaane not na la bëgg na nga yàq lislaam wala nga xalak sa bopp parce que lislaam kenn mënu ko fee dindi mu di la wax loolu lii wala woo am na ñu lay fay ngay wax <clears throat> waaye li ngay wax mënu koo lay dégg nga su ko defee euh, mu ngi indi li nga xam ne Ibnu Taymiya wax na ko waaye mënoon na ko ñàkk indi parce que Ibnu Taymiya waxu fi tus waaw dafay wax li génnaat ci waaye ñu jaar si jaar bu gaaw rek moom baax amul njariñ <clears throat> jàppal daal loolu ñu borom xam-xam yi wax fal nara nañ gis alaan léegi maa qaal la wax na ko cheikhul xaraani cheikhul xaraani mu ibnu téeméer dañ koy askane foofu taarif ibnu téeméer xam ne ibnu téeméer lan mooy bidaa léeg-léeg mu ànd ak borom xam-xam yi léeg-léeg mu bëgg wuuteeg ñoom te mënu ko gis nga dëgg man damay wax ne bu fekkee yaa ngi ci te muy dëgg war nga koo mën a lay boo ko layut rek da ngaa xamul dëgg googu waaye dëgg saa yoo dajeeg caaxaan dindi ko ñoom nag boo leen indilee dëgg goo xam ne mënuñ ko dindi dañ naan li wax philosophe la rek waaye mënuñ ci dara waxe philosophe yow nga nekk julit mënoo ci waxe philosophe dara awalan fi qala wana fi majmuuc fatawa mom ibn taymiya ne al bid'atu bidaa idaa lam takun bu nekkul wajibatan di aji war aw mustahabatan wala luñ sopp fa yi mom mazmumatun luñ ŋàññi la bi ittifaq jameen muslimin ci deppum mboolem julit ñi li la ibn taymiya wax nee bid'a bu warul sopuñ ko dañ koy ŋàññ kon moom nangu na ne bidaa léeg-léeg mu war sax wala luñ sopp lii la wax si Majmuul Fatawa moom mooy seen sëriñ moo tax li ñuy wax sax gëmuñ ko far dëgg-dëgg loolu wax dëgg yàlla ay xale yu ñàkk xam-xam lañu su buñ doon mag ci xam-xam duñu wax lii saaniya ñaareel ba xaala wax na fi Majmuul Fatawa nafsuhu Majmuul Fatawa ci boppam Ibnu Taymiya wax na fa ne wa maa xaalafa loo wutee naag ak nusuus texte yi foofu moom bidaatul bidaa la bi ittifaaqil muslimin si dëppoog jullit ñëpp nee loo xam ne dafa wuuteeg taxi yi bidaa la xoolal fii léegi bañ naa xaaj bidaa gannaaw bu mu ko xaajee ci taxi bu leer nañ mu bañ koo xaajaa mooy wama wama lépp loo xam ne laa yoo la moo xamuñ annahu ne moom xaalafa wute naag bidaa wute naag taxi faqat laa faqat laa yusamma mën naa am duñ ko tuddee bidaatun bidaa mu ne loo loo xam ne ni wute wuuteeg taxi daal wala mën naa am duñ ko tuddee bidaa léegi luñ koy tuddee xam nga li mu wax ni kenn xamul mooy la lu wuteeg taxi kooku moom bidaa la waaye loo xam ni wutee wuteeg taxi yi mën naa am duñ ko tuddee bidaa léegi luy loolu mbir kay foo mu am tur bu wutee wuteeg taxi neel bidaa bu rafet la. comme nu mu ko waxee ci waxam ji njëkk ji wala na sunna la sax sunna waa ji la waaye fi nekk nii <clears throat> xaaj na biddaa ne am na bu war ak buñ sopp ak buñ ŋàññi mais xol bi nangoot loolu lay niru mu bëgg a waxaat ne biddaa bu rafet amul waaye xamul nu mu koy waxee mu ne bu wutee taxi yi biddaa la ñëpp dëppoo na ci bu wutee wutu taxi yi mën naa am duñ ko tuddee biddaa léegi ana njëriñu sharia foofu Cheikh Hakim danaa lii liira wala liira wala Ibnu Taymiya moom mooy wax mbiri moom mooy àtte mbiri te moom la muy àtte xam utalu ko tur <coughs> xam nga teg si ñaareelam bi mënoo koo dégg yow maanaam xamul njariñ waaye na durus bu ñuy jàng mañ moo taarifee nii dajee waaye ñaari xamle yëpp boo boolee ñaar yi mu wax yëpp ni mu xamle bidaa aw kulan wala lépp mi maa si ñoom ñaar ala xiddatin ci mm, beru wala nga jàngale benn bu nekk xamle ko laa nakaaru duñ xaw nadri di xam masaa maasa yuridu lan la bëgg an yu sabita mu saxal bi dapt ci taxi bi dapt ci <coughs> takk maanaam boo boolee ñaar yëpp doo mën a firi wax ci boo jëlee benn xam xamle ko jëlaat xam xamle ko doo mën a fiir wax ci bidaa bu warul soppuñ ko luñ ŋàññ la lu wuteeg taxi yi bidaa la lu wuteeru taxi yi mën naa am duñ ko tuddee bidaa luy loolu lii nag mooy diine waxa bi mboolem ñi nga xam ne lii mooy seen jikko ñi ne lu ñëw bi daal boo xoolee dañuy am tanaaqudaat ay wutee seen wax yu bëree bëree bëri bëri bëri wutee seen wax lu bëree bëree bëri bëri is ngir najidu dañu fekk alfaqatu ula paas bu njëkk bi min taarif yi ci xamlem asaani bu ñaareel ba ne wamaa xaalafa nusuus lu wutee texte yi foofu moom bidaatun bidaa la waadixatun loolu lu leer la للغاية في دولة الرواية لوتك تكسي من بدعة لول خمنانكو وين الفقرة الأخيرة قد بمجيبي من بهمة لندم لجدا لول ما يوما لا يعلم لو خمنا خمون أنه من مخالفة أوتنا تكسي فقد لا تسمى أما دون كتر البدعة البدعة فما القيمة الشريعة لما ينجرنيو فلور الشريعة فيه وما القيمة لما ينجرنيو فلور الشريعة بكل الشريعة الشريعة موين ترنبيري ñu xam ne lii lii la lii sunna la wala bidaa la bidaa bu ngàññ la wala bu ñu rafet la loolu du sharia moo koy def léegi nag Ibn Taymiya tàj na fële sharia léegi moom di defal boppam moom ne mën naa duñ ko tuddee bidaa léegi nuñ koy tuddee luñ koy tuddee moom ana léegi ban nattukaay lay nattee li xaw lii ngir wax ni wax faqat laa amaana duñ ko tuddee ana sharia wax gi mu wax loolu xunaa fii dafa wax ne moom léegi mooy tëral mbir yi boppam moom te léegi am na ci loo xam ne moom amul tur amul tur lu wute wute texte yi amul tur ci Ibnu Taymiya ci waxam ji <laughs> gannaaw bu mu waxee nag biddaa day nekk lu war wala luñ sopp wala luñ ngàññ <coughs> innoo naka moom kaa nekk na bu di daw min taqsimi biddaa ci séddale biddaa ilaa xasanatin ci lu rafet wa sayyi'atin ak lu ñaaw dafa bañ a séddale biddaa biddaa bu rafet ak lu ñaaw ويلا بدعات هدن ورسيم بدعة جب وبدعة دلالة بدعة رير لون لي بني لتخ لأن العلماء نخبرهم كم قمي سبقوه جيت ننكو إليه جم شلول هو تمام لابد من يك أن يخالف موت نيوم برم كم قمي جيت ننكو شلول نلي بدعة بجبلة لمن بدعة بدن مم نك ألا موت برم كم قمي ما تخبرني إيه bëggutu wax lu borom xam-xam yi wax il faut mu jéem xuut yoonu boppam rek fartama mu sànnee ko fi ahdaani tanaqud ci leggi wutee wala tiraabi ak wax ju jaxasoo looloo ko yóbbee muy wax lii tey suba mu wax la loolu mooy leggi wute ahdaan mooy wet rek waaye sax dana feeñ làkk ñàlla zaariku loolu bi shaklin ci melokaan aj laa bi gën a feeñ fi taarif yi ci xam xamle gi mu xamle alawalu gu njëkk gi xay su xabila ba mu nangoo waqat an taqoo te tuddloo na ko alxaqu dëgg bi wujud bidaatin ci am ak bidaa waajibatin bu war waxra ak beneen mustahabatin bu sopp buñ sopp <coughs> waxam ji mu njëkk wax nangu na fa dëgg yàlla wax loo ko mu wax dëgg ne bidaa am na bu war ak buñ sopp wa saalisatu ñetteel mazmumatun buñ ŋàññi walam yaqul waxul man sabaxu ñu ko jiitu xëyri xasa li borom xam-xam yi dañuy wax am na buñ sopp bu ak buñ ŋàññi buñ ŋàññi buñ sib ak bu xaraam def ci dugg lii rek la borom xam-xam yi wax waaye ba mu ko waxee teewul bëgg wuutee tax na mu waxal loo xam ni xamul muy firi basaakaana bu nekkee hunaaka foofu mala la nga xam ne laa yoon ma duñ xam andoona moom xaala fa wuute naak anu suusa taxi yi foofu moom al bidaatu mooy bidaa al alxasana bu rafet lii luñ sos la gannaaw yonent bi waaye wuti wut ak taxi yi loolu mooy bidaa bu rafet aw bidaatu hudan wala moom mooy bidaa njub wa cheikhul xaraani yi sëriñu xaraani bi mooy ibnu téemiya يقول من يوحنا فقد لا تسمى أمانة دون كتير بناء بناء لودي وتكسي من منا دون كتير بناء تي وهم دنيا فما هو نن تبي إذن كن لأن شيء عند خمر الحادث بسوسو لا بد دمنا يأكل ونيل كم اسم من شتور أقل أن تقل وعادة أكتي عادة لسوسو من فما أم تور لكن نن تبي لودي وتكسي نن تبي لكن الشيخ خواي سرنبي بي يتحرك بداية داو من ذكر الحق شي تدو دق والحقيقة أك لنا خمني موي لهور دفع بني تدو دق أك وخمير من نم دمي دق دق فما هذه السنية من لان موي كجوك سنة كي كو خمني نينا موم سنة يننتي بلا أسكنو بو لا أسكنو بوهم تنيي لا في نيكي لول موي بن سنة موي لي مانا واخ رك نيت كو تاخاو ني سنة لاي جاب benn nit def nit def lu bon nga ne waa nangam nii lañ mel te nga dem fekk seen téere yi yëpp ñu lay wax ne tasawuf mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ni ko yàlla gërëmee paayow ni nga ko gërëmee mosoo ko bind mosoo ko wax nga ne waa tasawuf ñoo mel nii jëm jël benn jëf joo xam ne ñaaw na rek ne ñoo mel nii walla boog benn nitu yàlla wax na dara yow nga xool wax jooju wax ji am ay anam yuñ ko mën a déggee nga seet dégg bi ci gën a ñaaw yow bu méngoog sa jikko yow bu ñaaw bu bon nga ne lii la sëriñ bi wax buñ ne la du nii nga ne nii yow daal dégg yow daal sa dégg-dégg daal daal mooy mooy li sëriñ bi war a dégg moom sa dégg-dégg bu bon bu ñaaw boobu bu salti boobu wuteeg alxuraan ak sunna yow nga am ko ci wax ji te tegoo ko lu mooy sa ñaaw jikko rek moom daal mooy dégg-dégg sëriñ bi leneen lu nit ñi indi nga ne lii lii rek la moom moom lay firi aywa kon sëriñ bi baaxul du jullit hmm? comme ko saay saay boobu woon Omar Sall kooku moom saay saay la hmm? dégg gaa yi di wax rek xamoon ni ñu firi ko mu ngi mel ni rek xale bu ñëw rek dégg benn waaye di jàng ndax mu ne alfaayil من فعل الفعل فاعل موي كي جف جف جي اخر مرفوع مدجن كي رفع من لي يولا ريب خنا الفاعل موي يالا باسكو يالا موي كي جف جف جي نان اي دنجكو رفع دنجكو نان يالا كو ييكتي ها انا اخر يالا مرفوع دنجكو ييكتي نون لا مال حنا مو يون الفاعل هو من فعل الفعل ويكون اخره مرفوعا الواجب من لا اله الا الله بوكالنا باسكو نينا كي mooy ki faayil mooy ki jëf-jëf ji kooku moom mooy yàlla waaye ngeen aaxiruhu mujj ak yàlla yekkul ma foo dañ koy yëkkati yow ko kaafir nga yàlla ku ko mën a yëkkati xoolal lu mu wax mais yow yaa yow yaa xamul dara maanaam yow yaa am dégg-dégg bu ñaaw buub ci sama wax mais man waxuma loolu lii mooy problème mu waxa bi ak kilifa yi xool dégg bu la neex nga ne nii rek la. nii rek la lu rafet daal bëggoo ko dégg seen wax lu ñaaw rek su ko defee nga ne ñoom ñoo mel ni dëgg-dëgg loolu tooñ la bu rekkee lii mooy sunna sunna baaxut lii la alquran di wax bu fekkee yéen saay saay yi seen gëm yàlla gi lii leen di gën a gëm gëmloo qul bi sama ya'murukum bi imaanukum la leen seen gëm gi di leen digal moo bon gëm gi baaxut Omar Sall def na ko fi man sax man daf may jaaxal kooku li muy wax man fu mu ko jëlee moo tax boo koy tontu doo xam noo koy tontee parce que parce que wax joo xam ni commencement bu mujj ga ay nar la dara du ci dëgg ay nar dara du ci dëgg gannaaw boo saxee sikkiñ nag ba weex weex tal ay nit wër la rek bëgg daraja rek tax ngay nar mm-hmm. tijaani du ñuy nodd takkusaan te nga dëkk Sénégal te nga dëkk Sénégal xam àdduna bi li fi li fi dox mu ne jabaratu kamal jinne yaa ko jox Cheikh Tidiane te mosoo gi jinne xamoon ni jinne yi mel mais xanaa kay balaa ngay wax ne diw diw ko jox lii nga fekkee fu ñu ko ko joxee mane ne bu ko fekkoon jinne yi ñoo ko jox Cheikh Tidiane sax ayatul ma ne la jinne moo ko jox Abu Hurayra tax na ayatul kursi yi bon waaye Abu Hurayra moom moo wax ne jinne yi ñoo ko jox lii mais Cheikh Tidiane moom waxul fen na jinne yi ñoo ko jox jawaratul kamal moom wax na fu mu jëlee jawaratul kamal wérde bi ci yonent bi la jóge nga mën a mën a nar mën a nar mën a nar ba sikkiñam bu weex boobu dem ba si sikkiñu weex nga war dee di ñëw ngay taxaw nga naan jawaratul kamal jinne yi ñoo ko jox Cheikh Tidiane loo koy tontu kenn mënu koo tontu parce que ay nar la waqadim man kunta anta imaamoo mu jël ko firi ko nu ko neexee comme nii ma leen wax nii comme xale bu jàngul jiitaleel imaam boo xam ne yaa ko jiite mu ne gis nga ñoom lañ lay jiital nii ci kanam rek waaye doo imaam <coughs> yàlla lañ lay def xaw ma nu ko waxatee noonu xam nga kontaan imaam li muy mooy sharia bi nga xam ne nii sa nga ko tegoon jiitu ko soo demee ba nekk mutasawif tegal sharia sa kanam nga di ko jëfee ndax wax ju rafet wa xaddim imaam man jiitaleel imaam boo xam ne nii kunta nekkoon nga ante imaam moo di ko jiitu te mooy sharia <laughs> wa salli salaatal fajri fi awal asri Omar Sall mu ne ñoom tàkkusaan la ñuy julli fajar kii moo mën a nar te gàtt xam-xam maanaam dañoo wax ne balaa ngay weddi benn kuréel dafay fekk nga xam seeni wax luñ ci jublu parce que faayin ci luuxa ak ci naxwu ak ci ñuy wax ci tawxid mën naa ñàkk nekk benn parce que ku nekk lañ ci jublu dañ ko war a xam ba pare door ko weddi mu ne fajal lañu julli takkusaan fekk li mu bëgg wax wa salli salaat al asri salaat al fajri fi awwal al asri na nga julli salaat al fajri comme julli tulu ruuxi ruuxu ga ba muy njëkk a génn fajr dafay nekk dafay joxe exemple misaal ci njëlbeen ak ruuxu ba mu njëkkee am ruuxu dafa doon wéetal yàlla boo kaayul ko ak dara bam mu bam ñëwé ci jëm ji rek fajr gogu ruuf lay juñu fi awali asr asr gogu jamono lay firi al asr lay firi jamono comme wal asr inna al insana la fi khusr asr lay firi jamono jamono ju njëkk ja saruhu ga nam setee won nam nu nan ak yàlla nga nga ak yàlla yow ci jamono ji comme noonu loolu mooy wasalli julli salaatal fajri comme jullik ruuxu fajru googu mooy fenk ak ruux gi fi awali asri si njëlbeen ak jamono ama sala mu ñoom fajal mbir tax yow nekk Sénégal dëkk fii Sénégal gis tijaan yëpp ak fon yëpp bu fajalee ñu noor dem jiri ah takkusaan nga boo demee takkusaan nga leen fekk ñu sëlmal nga mën a nar mën a nar ñeme yàlla ba ne fajar lañ jiri takkusaan loolu tamit xam nga kenn xamu mooy la bu fekkee loolu mooy sunna fa ma sunni ya lan mooy sunna bi dégg naa ko nag mu wax loo xam ne nii war na koo tuub kufrun sarixun weddi yàlla gu leer naññi la lu Omar Sall wax xéeféer la wuti naag alxuraan wuti sunna ndax nee na demal xiyaamati sa yaram bii yaram bii du mooy dekk sa ruux gi da yàlla jël def ko ci beneen yaram foofu la ñuy dugg aljana safara yaram bi moom bu duggee suuf mu ne jeex na kii moo bon القرآن من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة القرآن مو سخلنا يخي ربي كي كسوسون تنجل بين بموك يدكلات تيان لي دو توغ جيم جو خامني موسوت مو يالا نان لا سي يالا روحو ديكو دوغال سفرا مي سي جيم جي رون موم لا لك نياتا ايا القرآن ñu ne waan doomu aadama danañ dajale ya xam dekkil ko yaxsabul insaanu an lan najma azaama balaa qaadirin ala an nusawiya banaana yàlla wala ne dana dajale waat yaxi doomu aadama dekkil ko sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci yonent bi war ne kenn ku nekk danañ la dekkilaat yow nga ne jëmmi doomu aadama yi suuf bu duggee suuf jeex na ruux gi beneen jëmm lañ koy defee ma xiyamati ko ko wedd na yàlla ndax wedd na alxuraan <laughs> boobu ba léegi nag déggoo mu tuub ko xaw ma dafa jotagut ne lu mu wax waxe kéeféer nu mu demee waaye daal déggoo mu tuub gaa dañoo rëy nag gaaw a tuub de tuub de ci mbooloo la ko wax nag boo jeexee ci internet bi toppay waxtaanam da nga ko fa gis mbooloo ñëpp ngi toog ndeysaan mu ne daf leen di jàngal di leen réeral rek <coughs> su ko defee bu fekkee lii mooy sunna lii waa ji wax ma ni danaa ko wax fa maa xaji sunniya sunna gi mooy lan sunna boo xam ne tooñ rek la wa maa xaji salafiya lan mooy salafiya gi bu dee salafiya mooy roy mag ñi ndax lii la mag ñi nekkee woon wax ci loo xamut loolu mag ñi mosuñ ko def fekk waa ji wax sàmba nga ne ko demba nga wax force nag danga force nag da nga wax demba nag force sa wax ji daal force mu ñaaw pour nga mën a génn ci lislaam nekk xéeféer force nag nga jàpp ci bidaa ak li nga mën a def lu mu rafet rafet force daal danañ ko biddaaloo force yéen waa kuréel gi nii ngeen mel da ngeen a bon sa jaamu yàlla yi rafet yi salaatu ala nabi force nag léegi jinne la ko jox moom force jinne ñoo ko jox loolu moom mënul si dara jinne yàlla ko jox force nag force du ngeen noddu tàkkusaan force fajar ci takkusaan ngeen koy julli force mais mais la ma salafiyee ko mais ñi est-ce que ne ko dañu bëgg nit ñi bàyyi l'islam wal haqu deug lay deug alladi nga xam la maxid di rek jéngaanu ci mom am ibrat nak lu ñuy xalam fi taqsim al muhdathat ci séddale yi sos laysa fi mujarrad al hudus ci raflet sos gi liñ sos pour nga xam lu baax am lu bon gi nekkul ci sos gi nekkul ne sos mooy lu bon wala sos mooy lu baax déedéet wala fi adil aqsaam nekkul ci lii mu xaaji yañ sos déedéet doo xool yañ sos hmm? façon yi yii mooy yu baax façon yi mooy yu bon déedéet jëmmi sos bi ak xaaj yi ñu sos yu wute yi loolu kenn du sukkandiku atte mais lañ sos dëgg-dëggam mooy lan ba pare nga xool am na delluwaay ci alxuraan ak sunna ci dañuy àtte sos dara nekkul ci la nga sos nag ndax lu ñu sos la wala nekkul lu ñu war a sos foofu mooy nattukaay ba way na maa hiya naka la ñuy xalam fii kunuhil muxdas muxdas mu ci dëgg-dëgg lañ sos war naa ak xeetam xeet ñu sos nii ban façon xeet la lan la dëgg-dëgg lii mooy lan soo xamee lii mooy lan nga xool ndax lii lu alquran nangu la wala nangu ko lu sunna nangu la wala lu nanguwul dëgg-dëgg borom xam-xam yi nii lañ laan nattee nii lañ doon doxalee moo tax ñoom ñëpp dañoo amoon jàmm mën a nekk ci jàmm dégg nga waaye nag mbooloo mu ragalul yàlla mi ba ñëwee fii ba léegi teqal nañ ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bidaaloo nañ ñoo xam ne jàppuñ lu mooy ci sunna yonent bi xéeferloo nañ ñoo xam ni nekku ñu mooy ay jullit bañ nañ seeni mbokk loolu lépp teg ko seen bànneexu bakkan tooñ ku tooñuwut waaye nag yàllaa nga gis te xam na li nga xam ne moom mooy njub te dana leen fay mboolem lu ñuy def ak seen caaxaan gi ñu nekkee yàlla na yàlla raxas suñu xol def ci yàlla rek te feesal suñu loxo ak àdduna yàlla may njub yàlla bu kiiraay dox suñ suñ borom boobu yàlla buñ nekk ñuy taxaw di xoote ci turu lislaam fekk dañuy gàllankoor nañu jëmee ci wër ci lislaam yàlla musal ci xoote jëmee ci lislaam fekk yaa ngi xoote jëmee ci réer yàlla yàlla musal ci loolu yàlla ñu yàlla musal ci ak seeni melo yàlla bu ñu jege yàlla bu ñuy xam yàlla bu ñu siq ak ñoom dara bi jaa rasulullah sallallahu alayhi yàlla nekk ay soldaar yoo xam ne soldaar yàlla lay nekk zaahiran wa baatinan yàlla gërëm ñuy jëf suñuy yëngatu suñuy wax ak suñuy dal in uridu al-islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu